ah déedéet ah am na. bàyyi ma nekk élève ba ci <laughs> kanam bàyyi ma nekk élève ba ci kanam rek. ah yow sama xarit nga. waaw mais euh, Ox ñu ah. daal la gis de. maa ngi fi de damay taxawaar rek. non yaa ngi nii di baax ba tey. <laughs> yow moom. Ah. gars yi dañuy dañuy jaawale. Mm-hmm. yow liggéey bi soo si nekkee da ngay concentré mm-hmm, mm-hmm. mais après taal bi sax dëgg waaw waaw xam nga nag liggéey moom boo ci ah. xasee nekk. da ngay concentré ci liggéey bi. waaw liggéey bi pare nga nekk ci la nga nekk. Ah, ah, <laughs> waaw da <laughs> ngay ñaari affaire yi. <laughs> waaw kay moom yow moom yow moom gars yi dañu lay kii kii fi ñuy séntu gars yi kenn du la fa séntu. parce yow moom vraiment dangay def seen liggéey normal. ba pare. so si gene gene kasi Wow, wow, man mo. Ayo mo Semua pare pare na. Ah, kaya hombo. ah mbay me da ngay xalaat ni après da ngay am ay famille am ay doom dañuy màgg boo nekkee ci loo xamante ñëpp dañ laa xam na rafet rek boo fa jógee bu ñuy wane sa image say doom duñ sëgg léegi daa gaaw waaw occasion ngay boo ba léegi mais yow kenn jëlagul la nga nga seedeel sa morom sa nawle boobu ci gaañu waaw ah, kooku nag moom nu ma koy seetee ku baax la parce que ko mos a gis. ma doon tourné ma doon tourné laay jara gaare moom oto ñu ooma. ma gisee sax dafa tiit. mu ne way grand man damay ñëw ñu ni dem nga. ma ñëw ah, ma doon souhaité nag ñu bokk benn bagage. mais gis nga yàlla li mu dogal. koy ñaanal yàlla rek yàlla yërëm ko. yàlla yërëm ko waaw ku baax la nag ku baax. parce que nit mën na laa gis tey ji rek nga xam ni kii ku baax la. parce que artiste dafay am ouverture. Mhm. koo gis def ko comme sa bopp. Mhm. te vraiment moom non la melon. parce que bi mu paree ma ne ko fii la dafa dugg ñëw nii gaa yëpp hmm. waxtaan farce affaire yooyu te loolu ma ngi yëfu noonu la war a mel hmm. moom sax bi mu génnee àdduna ñu bëri xam ni si affaire yi la la nekkoon carrément quoi social bi parce que man image am bi ma gis hmm. vraiment nit ku baax muy def noonu gis naa ci benn genre pick-up yooyu mu yab ay ah. ventilateur affaire yi jëm prison bu tëngeej mais artiste war def li ah, ah. ñu am bëriwul mais il faut ñu nekk ay nit <laughs> mais il faut la gars yi dinañ jàppale parce que ah mais tamit mooy loolu Sénégal moom <laughs> bi dafa mbay lii moom chaque jour moo wax ko. Ah. <laughs> gouvernement bi ñoo war a signer artistes yi. théâtre kat yi. Mm-hmm. ñuy yor seen carte SODAV dem di laal seen xaalis. Mm-hmm. xaalis mën ñu ko bàyyi SODAV rek mu tëdd fa. dañ mm-hmm. ñu jàppale. moo gën bu ñu feebaree wala bu ñu dee ñoo taxaw waa ki sëgeel ndigaale joxe fa uh-huh. xaalis amul uh-huh. sens. Uh-huh. bu ñu jàppale ci suñu carte yi naam. artiste bu am œuvre boo demee Soraab ji fay la léegi affaire bi nekk ci day dem ba léegi ba artiste su su kiiwee sax su feebaree sax day rusa. ah mais kenn comme yow boo wootee ñu da nga yalwaan. waaw kay <laughs> rek ba yàlla def lu gën. <laughs> dana moom. Euh. artiste yëpp nii la ñuy gaañoo. ah, ah xam naa daal ah. dee moom yàllaa ko yor. Ah. mais artiste war nañ leen geesu bu baax a baax. waaw war nañ leen geesu. producteurs yi geesu artistes yi dañ fay xaalis bëri. di góorgóorlu pour mhm. fay artistes daf ciy baax tamit. ah oui parce que pour war war war war naa gérer yi fi tamit. ah mais noo nooy def. bu la yàlla dimbalee fekk bi ngay siiw am nga jabar am ay doom. Ah. li ngay amas néew fa nga koy yóbbu. Ah, ah, mais fekkoon tey am na gouvernement lu muy ñamal chaque weer. affaire yi day gën a dox. waaw day gën dox mais <laughs> si ñett rek lañ koy ya, wala dañuy jël kenn. ñoom daal ñi ñuy fay mooy waykatu jàng yi. Mhm. waykatu mbalax yi. Mhm. waykatu mais artistes comédiens yi soxla nañ ko de. Euh, soxla nañ ko de. dégg naa ministre culture moom wàcc na moom ki fa nekkoon. ah dañ ko dafa ko wàcc. waaw wàcc waaw. kii Aline Sow. non ki fa nekkoon xaw ma daas xaw ma. ah ok Aline Sow moo fa nekk temps yi. waaw waaw waaw ah, Aline koo gis. ah mosoo koo gis. waaw ah, de ah. <laughs> mais mais mais gis si si si polémique bi am si diggante seen artiste bëri na polémique si dem. waaw mais noonu la. Euh, milieu moom euh. liggéey bu dox gisoo làmb ji. bi mu doxulee kenn déggu leen mais milieu bu doxee rek bëri ay wax mais ku ci nekk nag yaa xam ni ngay taxawee bañ a dugg ci yenn yi bañ a dugg ci yenn yi bañ a dugg ci lu nu lay waxee am nit bu duggul ci dara kenn du ko wax dara mais boo duggee fa ñuy waxee bu nu la waxee rek yow la <laughs> mais euh, euh, soo gisee ki ki ki mhm. ah, moo mhm. dem na mhm. bàyyi fi polémique bi ah, mais Sénégal moom noonu la mbay Sénégal Sénégal ah. boo fi dund du nga faale ah. mais boo dee rek débat bi yeewu ah, en tout cas daal sunu moroomu doomu aadama la comme moom yàlla na ko yàlla yërëm ah dañ koy bañ de loolu ah man mu ko bañ danga may rey rek ah loolu dañ koy ko yàlla yërëm il faut yàlla yërëm ko nag parce que yàlla moom moo yor àllaaxiraam <laughs> mbay man li nga yor kurus kurus kurus bi xam nga fan laa jëm waaw sabablu rek lu ñu naan bàyyi yàlla mu def joobam <laughs> yàlla moo ñu sàkk indi ñu fi <laughs> alaaxira yi yàlla lan bàyyi yàlla bu def joobam. ah <laughs> waaw affaire bëri polémique ah, mais noonu la noonu la noonu la sànq rek ñu ngi koy waxtaanee pourtant ñu naan ndeysaan kii kenn xamu ko woon. waaw waaw mais bi mu dee dafa mel ni yàlla da ko ubbil bay rek. waaw ah mais njort mën naa rafet. xam nga nit bu kenn xamul. waaw la. waaw nga dee ñëpp xam la. waaw loolu taw la. waaw dafa tey boo gisee armeel ba fa demoon ci nit. Mm, waaw waaw. Ah, nit ku ñu gën a xam dee na te kenn demul noonu. xol bee baax. Mm. nit bu sa xol baaxee loo bëgg da nga koy am. Mm-hmm. boo dee mu gën a baax. Mm-hmm. kon nit ñi nan bàyyi ak yàlla joobam. te mm-hmm. joob suñu war a joob allah àdduna fii buñu demee ñu xam li yàlla def. ba si ba si polémique Cheikh Ahmed bi sax foofu la jógee. ah Cheikh ba man Cheikh Ahmed Cissé. yéen kooku ñemee wax ci <laughs> Cheikh Ahmed daal gis naa ko muy def ay vidéo mais daal li ma rafetluwul ci ay waxam mooy saaga yi mm, leneen nag moom moog yàlla la ah. mais ay kilifa kenn du leen saaga am nañ ay doom am nañ ay yëpp yëpp même bu la waxee lu ñaaw ngay nitu yàlla mm-hmm. bàyyi leen ak yàlla mais saaga yi moom vraiment rafetlu moom mm-hmm. xaw ma fan lay saagaa nag mm-hmm. mais sañ man dama lay seetaan lu bari mais saaga yi moom rafetlu ma ko. saaga yi moom wax dëgg yàlla rafetlu. Mm-hmm. parce que kilifa kenn du ko sa saaga non man yontu yàlla moom mooy sama fans aw fans. <laughs> comédien li ñuy bëri bëri yonent bi rek laa faaw ah keneen faw ñi fi ñi fi bañ faa ni di ko toppandoo te dama sama istilu bopp ah waaw yow moom bàyyi ma toppandoo yonent yàlla ah, Muhammad rek il formidable comme woy bi kat bi ni mu waxee formidable yonent nga génn fi mu nekk mu nekk nii day gis yow kase fi nekk nii mhm. jox nga doxal ko mhm. ah ba pare gaa yi ñu naan xewwi yow kii xew kii xewwi na de. Ah, yow loolu topp la loolu am xam nga métier dañ koy jàng man ah. démbee ma jàngal li may def. Ah, démbi. moo tax foo ma roof ma dem fa. parce que nag ñun xëy ñu rek nekk ci affaire yi. démbi daf ñoo jàngal comme ni ñuy jàngale nit mécanicien yor yat taxaw. Mm. lii la lii da nga koy def par la force. loolu nag boo ci duggee. Mm-hmm. xam nga artiste foo it mooy waral bu ñu la joxee rôle nga def ko am na loo xam te mayu yàlla xëy na yàlla moo ñu jagleel loolu ñu ngi ciy sant a baax waaye du danoo aay nag aay ñu xamuñu dara ah. ay apprenti rek ah, ah, parce que parce que yi naan ay waaju baax ma tooñ ko sax mm-hmm. dafa xeewi nee nañ waaju baax dafa xeewi artiste du xeewi nee waaw mais yaag moom yéen a doon démarré artiste du xeewi ah nee nañ xeewi na non ban xeewi Sénégal ñoo tàmm rek bu wax yu bëree ñu kii la après gars yi ku nekk yaa ngi dóor bi dóor waaju baax bu xeewee tam mi nga am seenam di ci dugal ay ay bagage am xeeyul ah, mais fa mu fañ ko doon gis rek mais boo duggee seen waaju baax dañu gis mu def affaire raxe ay affaire yoo xam affaire la man li waaju baax am maa ngi ñaan yàlla am ko am sama liggéey tool rek da ngaa xeewi yow fa nga toog xew fa rek te yor li am solo a nga ne ma deux cent mille soo ma liggéeyul dem liggéey sa bopp ma ne ah. Ah, ah foo nekkoon nekkoon ci Kouthia wax nga dégg ah, boo xoolee fa nga jógee ak fi nga ak si léegi yaa ngi yor sa yëfu bopp yaa ngi sant yàlla ne woo kenn salaamaaleykum dama nangam sama baax na foofu la toll mhm. artiste bu mag la Sénégal amul artiste bu ndaw waaw da nga nekk rek bañ a dugg ci li gars yi dugg après nga dox sa dox mhm. yàlla moo yor àdduna bi kenn yoru ko ay xew a xew yooyu amu fi yonte bi rek moo fi nekk waaw ñëpp ay xew yi mhm. bu dee xew rek ñëpp ay yonte bi ñaata at la fi jógee ba léegi moom la ñuy wax kon xew yi day xew lii du xew fii amul star de amul star de ko fi yaagaan star nga da nga fi jógee eh, eh, eh. mais mais mais polygame mhm. ak ah, naka naka coow li waaw polygame ñi ngi waaj ñi ngi waaj ñi ngi waaj xam nga saison bi daanaka jeex na donc ñu ngi waajaat beneen saison bu bees insha allah rabbi naa léegi gars yi gisaat ko waaw waaw ah, yéen a ngi sees rek ba tey di ko lëmbal waaw temps yi dañoo pause woon nag mais xam naa fan yi rek insha allah ñu mhm. ngi commencé waat yëf yi waaw ah, tey boobu yaa ngi ci Assane Fall Assane Euh, kii nag. <laughs> Ah, ah, ah. kii nag occasion wax ci. xam nga gars yi ñoo tàmm bu la gisee ci place artiste. ci place su jaaykat yi mi ngi koy dóorati de. dóoruma kii. la mi koy dóor de. kii kon euh, bi ma koy xam. mooy woytul woykat yi. kii bi ma koy xam. boobu dafay takk buum fii takk buum fii lonk affaire yi comme nii. donc man bokk ma ci gars yi nga xam ne dañuy ñëw fii di ko jaay pour am benn tissu après. waaw woykat yi woykat yi la woykat boo ñëwee fekkoo ko fi ñu naan waaye gars yi <laughs> <laughs> waxuma kenn la de xam nga. woykat yi la. aduka <laughs> la. mbay loolu yaa mbay wax. No woykat yi obs woykat yi woykat dañuy ñëw fii non woykat yi fépp ñoom bàyyiwuñu dara téer yi daw ak ñëpp la mais nag kaay wax la benn affaire nag Assane Fall xaritu ñëpp la ah woykat yi rek lay daaneel de Assane Fall xaritu ñëpp la dañuy daaneel artiste waaw mais non mais mais nag am na loo su lu fekkee ni da lay defal teranga foo toll da nga war wax di teranga bi mu lay defal du dëgg mais nit defal la teraanga benn yoon ñaari yoon nga ñëw fekk ko bitig ba rek après nga ne waa ji jaam la loolu doxul parce que bitig bi tam xaalis bu fi nekk kii jël benn mètre tisi wala ñaari mètre tisi jox la ko xaalis jox Mm-hmm. donc bis bu la ko jootul nga xam ne nekku fa loolooy dëgg mais gars yi ñoo gaaw waaye waa ji jaam la waaye ak di nekk fenn ba mu yàgg ne dootul leen fa gis loolu baaxul nit tamit yow yow tamit kenn du la gis fu bëri de non man doxuma ah, ah. déggool ma la man tournage kër ga soo ma gisul fenn rek fii laa jaar man ma jaarukaay yow moom kenn du la gis fenn non non dew ma ci yooyu ku ma invité wul doo ma gis. mais moo tax loolu. donc ma invité ma ñëw mais ku ma invité wul doo ma gis de. mais nga ah, am ñoo xam dana am jot. Mhm. te mbay man ma wax la benn affaire. Ah. su ma demee tournage. Mhm. su ma ñibbee kër ga. julli naa maa ngi fii. Ah. soo ma invité su ma ñëwee joué ba pare doo ma gisaat acca aw ma jot boobu noonu. mais gars yi est-ce que da ngaa rëy wala da moom loolu yow la rek. Mhm. kon moom rëy ma xam naa ni ma toll. mais lan ma koy wut fu la invité wul ah mais dama dama taxawal lu sonn damaa simb fekk sabar parcelle yëpp tasaare naa ko fuural soisel yëpp maa ma yàlla maye ba ñëpp xam ma li ma war a def mooy ma liggéeyee dem sama kër ma toog jàpp ci yàlla mais fu nekk nga lambar lambar bi lu xew ñun la yaa ko fekk te man bëgguma fekke dara waaw nga dégg de waaw nga yi gar ko sax dañ la daan pour jeex la duñ la fekk non Carla damay damay ñëw tourné rek ñibbi loolu dafa dem ba man su ma demee tournage nit ñi xam nan ah. benn place comme boo ma tegoon seize bii ñuy tourné fee mm. fii du ma fi jógee mm. julli moomu fay jógee werde dem tourné ñaar toog su ma paree boo ma yéexee jox paas dem naa sama yoon mais yow père Makhar sa xarit la trop doyen sa xarit la mm-hmm. doo leen lijjanti foofu ñuy génn bokk non gars yi ñoo ma baxaaj ñooñu fi ñu liggéey dama ma fa liggéey sant yàlla mm. de embauchement TFM doxatuñ waaye waaye loolu waaye du ñëw liggéey. Eh, eh, ah non mi ngi Amérique dafa am yi foofu. nekkatu fa ankay mi ngi fa de. nekkatu fa de. non père mi fa la. mi mi ngi fa kay dafa dem Amérique vacances rek. vacances bi muy at. non no non père bi mu demee la ñaari weer la. ah, ah yàggul doyen mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi TFM. parce que saa ma dégg ci rajo bi. rajo bi. Mhm. yenn saa yi. <laughs> waaw xam nga nag yenn saa yi dama koy déglu ci rajo bi. Ah. xam nga nag am na loo xamante ni duma ci dugg parce que ah. ñaar ñooñu moom. Ah. seen diggante bay boo kuy wax nga wax ci lu rafet. Mhm. ñoo màggandoo ñoo ñëwandoo Dakar ñoo nekkandoo benn. ah mais ne kii wootuñ de. ah mais loolu saa loolu àdduna la rek. Mhm. dinañ àndaat. xam nga nit ñi dañuy wax rek. ñoom ñaar ñi ngi déggante ci jàmm. ay xam naa projet boo léegu leen rek. xam nga bu fekkee da nga bokk ak projet tey ku dem mën a defal sa bopp. Mhm. après yàlla dina leen boolaa ñu nekk ci mhm. benn affaire loolu loolu a Sénégal mais laa jarab yi na ko ñu ko na ko làbbaliwaat neex na trop. Marodi waa waaw xam naa ñu ngi ci. nañ ko làbbaliwaat neex na trop xam naa ñoom ñu ngi ci. waaw neex na trop ñu ngi ci. <laughs> jaajëf Pape. Mbaye sama xarit nga. mon ami bu baax a baax.